dalee nag jàmm ci seen euh, chaîne bu suñu info donc euh, comme ni ñu ko waxee woon ñoo ngi fii ci euh, jumaayu Touba ci ndigal li nga xamante ni Serigne Mountakha Bassirou joxe woon na ko ci njàngum alxuraan yi gis ngeen ni fi taalibe yi teewee fees dellu ci jumaa ji mu mel ni dañoo nekk ci ab màggal donte nekk ñu ci waaye ndigal li nga xamante ni moom la joxe woon ngir ñu amal lii di njàngum alxuraan ak dursu xasida yi taalibe yëpp nekk ci donc dinañ dem ci mbokk taalibe yi laaj leen seen gis-gis li nga xamante ni moom la Serigne Mountakha joxe comme ndigal ngir ñu jàng alxuraan waaye tamit dinañ leen Euh, wan la lépp li nga xamante ni moo am ci biir euh, bërëb bi muy ñi jàng alxuraan ñi durus euh, nga xamante ni ñu ngi si lii di yëkkati xasida sëriñ Tuubaa yi waaye tamit ci li nga xamante ni mooy xéewal yi sëriñ bi waxoon nañ ko andi si jumaa ji mën ko jox mboqtaal bi ñu mën di xéewlu saa su leen neexee donc loolu moo nekk li nga xamante ni moom la fi sëriñ bi joxe tey ci comme ndigal donc li moo nekk li nga xamante ni moom lañ leen di digtal ci ndigal li nga xamante ni sëriñ Muntaxa Basiru joxe na ko fii ci biir Tuubaa ngir njàngum alxuraan ngir ci élection yi nga xamante si lañ jëm jàmm mën a am ci biir Sénégal euh, donc asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. بما يسره الأسان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجاء ربي بما يسره الأسان قد فجاء بجاه أفضل تدري من لله قد لجأ عمدي لرب كريم لا شريك له وزادي اليوم نورا زاديا ملأ digal li ba ñu sant yàlla ci cont wa sallam gërëm suñu ñaari waajur sant sëriñ Tuubaa di sant suñu fi nekk di sëñ Muntaxa moom sëñ Moustapha Basir di sant taalu bi yëpp di leen siyaare ni ñu ko gisee moom mooy taalu bi amul lu dul ndigal te sëñ bi ndigal li mu joxe xam na ne suñ pajuk aajo ci la nekk àdduna ak àlaxira kon nag nin ko mën a gisee moom mooy ñun ñëpp nu wisi ko rek doxe ndigal li li des nag nu bàyyi koog moom maanaam sëñ bi de dafa joxe ndigal pour ñu wàcc ay kaamil si jumaa ji pour maanaam kaamil yi mi ngi jëm ci wàllu maam jéggalu di tuubal yàlla suñu borom bu baax a baax te delloo si xale ci yàlla mi nga xam si ni moom moo ñu fàcce te wàcce wuñu fi loolu ñu jàmm ko ndax moo ne wa maa xawatu junni wa ñu jàmm ma kon moro sëñ bi day fële kuréel googu pour ñu ñëw si jumaa wàcc kaamil jéggalu suñu borom baalante àq jéggalu yàlla mi nga xam si maanaam day nit ñi bari dañ dëkk si di ko tooñ di ko jéggalu bu baax a baax mu def Sidi Mokhtar Sidi Mokhtar ñu fi lool mu yàgg lool te ànd ak wér ñu ñaanal Sidi Mokhtar suñu borom yokk ay dem tas ay booloo doon benn te maam kon lépp suñu Tuubaa sa nga xam ne maanaam sëñ bi woote gi woote murid yëpp bàyyi yitte yëpp ñëw daa doon loo si maanaam sëñ Tuubaa moo ko liggéey te moo def xol yi maam murid képp koo si maam murid nga rek boo gisee sa sa moromu rek da am cofal ci moom ay yëg da ngay mel ne koo xam si maam boo bokk benn waajur loolu sëñ bi moo ko def ci xol te xalifa moom bu wootee rek ñëpp dañ koy wuyu si ndax maam amuñu lu dul sëñ moom bu sëñ bi wootee lu nu jàppoon dañ koy bàyyi te teew ak sunu njaboot ak lu nu ne dañ dañoo teew ci ndaje mi ndax amuñu du ko gën a màgg sëñ bi ndigal taalu bi amul lu dul sëñ bi digle mu doxee ndigal la. ànd bandeex ak mbégte ak xol bu sedd rek ci xam ni sëñ Tuubaa da di géej mbàmbulaan foo ko làmb rek ma nga fa bàllee sa buri ndax ñun ay taalu bi lañ ndigal rek la ñuy déglu ndigal rek la ñuy xaar ndax suñ lépp sëñ Touba la kon buñ nekkee Touba dëkk ci dëkk bi dañoo war a doon doomi dëkk bi ndax sëñ bi bu wootee danoo wur a wuy si di ñu digal ñuy def diñu tere ñu diñu tere ñuy bàyyi kon ñun loolu rek lañ lañ am ndax ñun ay néew lañ fu nu war a jëm rek dañ faa war a jëm ndax tuuti nga yeewoo di Touba Mbacke nga xam ne titre foncier la amul kayitu kër kayitu kër bi kenn ko yor ndigal li kenn ko yor kaddu gi kenn ko yor muy Serigne Mountakha Bassirou yàlla na fi yàgg gën yokk fan wi gën a woyofal yan bi عمت مواعبه لجملة الخلق ما يغتاب من باء نجد جل ومن وقامني تكريما sëñ Tuubaa moo ne kullu muridin bi yoroon si faridin tilaawatan li xayri zikrin xadrisi maa ngi dëkk bépp taal bi wéeri ci man bu dëkkee jàng alxuraan Touba moom ku leen xam ku ne xam ne ndigal loolu saa su nekk ñoo ngi ci tey ji nag dañ ko gën a feddali ndax sëñ Muntaxa mooy jëriñu yoon yi mooy sëñ Touba ah li mu alxuraan yi nag kenn mënu koo takk a rawatina xasaay di kenn ku ci nekk xasida ga nga xam ne mooy sa mooy sa wéttal yaa ngi ci ñii ngi durus wakaana xan ñii ngi durus coxfatu ñii ngi durus bépp lim daal mu su ko takk waaye lépp nag mooy adduwaaw silaahul muminin ndax yonent bi dafa wax na ñaan mooy mooy ngànnaayul jullit jullit bu jaaxlee li nga xamante ni mooy mooy ay ngànnaayam mooy ñaan te dañoo war a delluwaat ci suñu borom jamono ji lënt na lool te lii ko sëñ mu taxa wax yëmul rek ci Sénégal àdduna bépp lay ñaanal ndax jàmm ñëpp a ko soxla moo tax ñu ngi ñaan élection yi ñuy dëgmal suñu borom def ci ndox mu sedd ki nga xam ne moo moo gën ci réew mi rek yàlla na ko yàlla ko suñu borom te ci réew mi ci barke Xaadim Rasul ñoo ngi sëñ bi ni mu ko waxee di sàkk sarax tey baalum ndax kenn ku ci nekk la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom يغني عني صري من قرآن قال قدمة المصطفى عن كل مفسدة والتهم الخلق يا من جادهم بدأ يا من kontaan ci rek kontaan ci sant Serigne Touba bu wér di ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi lool te wér ndax ñun dañoo tàngal café ma ànd ak sama borom kër ak suñu waa kër ñu ñëw pour liggéeyal Serigne Touba rek nag moo ñu tax a jóg. ma jaa ngi fees daal nga xam ne yoonu Serigne Touba moom ca kaw ca kanam rek Serigne Touba daal bu wootee ñun ñëpp ñu wuy si ko ndax dañoo sant yàlla bañ juddoo di jullit Serigne yaakaar Serigne Touba. خواد إرم جميع يا هاديا غداء موت ما قنا القلب من دين بجاه أفضل من لله قد لجاء أتيتني يا ربي من لدنك سكرا Sénégal moom jàmm rek a fi am comme Sénégal jàmm rek a fi am moom élection yaa ngi jub coow li bari na te ñoom ñoom ñoom ñoonu gën a xam lay ñëw suba waxatuma ak loolu tey li bu joxee ndigal loola noo xam na lam ci gis ba tax mu joxe ko ba tax na nun dañuy jëfe ndigal li te ñaan yàlla bu ci yeggee jàmm yàlla may nu jàmm num nu ko daan maye ci barke Serigne Touba. élection yi dafa jub si te bëri na yëngu-yëngu yi ci dëkk bi bëri na yëngu-yëngu ci Sénégal lu mel ne wàllum violence yi daa bëri lool te sëñ bi maanaam dañuy wax naan ay dem ci bopp borom réew mi si borom def ci jàmm wàcc xéwal di di soñ tamit politiciens yi ak ñi nga ñooy ñooy présidents yi ñu ñuy woote jàmm ci réew mi def jàmm ci réew mi élection yi si borom def ci jàmm ak xéwal mu jaal ci jàmm ak salaam. gisee mu woote loolu ngir jàmm am ci élection yi ndax olof Ndiaye da dërëm bi génnul gaal gi ñunu nen la ci suñu ne. yaay am lii rek yaay am lii ndax euh, ku sa bis euh, déggoo ñu ne am ak ñàkk rek ñoo fi ne ca loo gisu nekk rek day jeex élection yi mooy li ko sëñ bi woote mooy jàmm ak salaam ndax jàmm ci la lépp xaj ndax Sénégal dañuy ñaan jàmm ji day yokku rek ndax sëñ Touba fii def jàmm ji ca day yokku rek ci élection yi li ma koy jàngatee ñu xam ne muy ndakaaru di fu waay mën na nekk rek nga def ko ci yar def ko ci teggin ca xam ne lépp ñunu nen la ndax ki ko ki ko jël génnul réew mi ndax ñun ñëpp ci sunu yokkute rek la sunu arrangement dong la kon élection yi nañ ko def ci jàmm ak salaam li sëñ bi bëgguñu ñu woote ko yàlla na doon mel ne ndox mu sedd ba mel ni lem ci ñun loolu dong la ñuy ñaan. Touba dañuy am jàmm ñun ñëpp dañuy am jàmm ñun taalibe sëñ lañ jàmm rek jàmm rek ca kaw ca kanam sëñ Mountakha ba mu waxee ñu jëfee ndigal yi ñun ñëpp euh, jàmm rek lañuy am fii Sénégal daal ñu baax ñi fi nekk ñëpp di ñaan jàmm. ñu topp ci seen ginnaaw ñun taalibe yi di ñaan jàmm jàmm rek la ñuy am قائدة عبدا خديما شارعا ولتجعل الدنيا لي المسالعا قائدة عبدا خديما شارعا وعبدي العلم صحيح والعمل السالع الذي يكمل الأمل اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تروناه بروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائنا ci sëriñ tubaab moom ñu xéewale sant suñu kilifa yu baax yi mu ko jaarale ci ñoom julli ci yonent bi moom mi nga xam ne mooy lépp sëñ bi sëñ bi di léppam doo ngi leen di jotale ab nuyoo ak i cant ak i ngërëm yu bàyyi ko ci sunu kilifa di kilifa murit yépp Cheikh Mouhamadul Mountakha ma ànd ko nag ak sama bokk yu baax yii bi teew xam naa du ñàkk ñu tudd waaye dañuy bañ a lim di bañ a tudd ko fi nekkul waaye sëñ Sidi Mbàkke moom sëñ Abdou Xaadir mi ngi nii sëñ Ahmadou Rafa moom sëñ Fadil mi ngi nii sëñ Alhaaji Mbàkke moom sëñ Mouhamadan mi ngi nii ak sëñ Abdoul Aziz moom sëñ Basiiru Mbàkke moom sëñ Baara mi ngi fi ak sëñ Amsatu Mbàkke mi nga xam ne moo yéete woon njàngum xasaayit mboolem taalibe sëriñ Tuubaa yu mag yi ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi leen di nuyu turu bi di jottale ay cant ak i ngërëm gannaaw bu mu joxee ndigal ndigal lu sell lii mënu jox ndigal lu barke lii mënu jox di sant ñi nga xam ne ñoom lañu ko àndaloon ñee ci jiitu ji ñi nga xam ne ñoo nekk ci jumaa ji njiitul sëriñ Afi Busa bu waa Muxaddamatul Xidma ak mboolem bi aji ci jumaa ji nag ni ñu ko daan limee rek ilimaan yeeg noddukat yeeg ñu nekk ci daane kaamil ak ñu nekk ci raw bi ñëpp ñu ngi leen di jottali cant sëñ bi ak i ngërëmam du santit mbooloo mi nga xam naka jekk noog ñoom ñoo koy ànd te sëriñ basiru mbàkkeem sëriñ fàdilu jiite leen ak sëriñ basiru mbàkkeem sëñ abibu ak sëñ xaali jaxate ak ñi ñu àndal ñëpp ñu waa rabbi sama daas alxuraan yi fii Tuubaa ñu nu ko sëñ bi diggale woon jàpp nañu defe nañ ko noona kon la ca topp mooy nu bokk rekk teewlu nam nam nu ko sante woon nu ñaan ci barke alxuraan ji fi jàng ak xasida yi fi jàng li nga xam ne moom la Sëriñ Muntaxaa yéene boppam yéene ko njabootu Sëriñ Tuubaa gi mu ko bokkal yéene ko taalibe yi yéene ko lislaam bépp yéene ko réew mi yéene ko àdduna sépp yàlla na ko Serigne Touba defal yàlla defal ci barkeb Serigne Touba ci barkeb bayit bi nga xam ne Serigne Touba ko wax te mu ëmb lépp li mu doon ñaan lépp baytoo ëmb na ko te moo di rahmaanu hab li jamihil xalqi rahmata man yuxni ani charri man qur'aanahu qaraa turu rahmaan ku ne xam na ni bàyyiwul kenn du nekk di ko leeral ndax rahmaanu ak rahim mën nañ ko mën nañ koo tàqale rahmaanu bàyyiwul mel ni mbindeef waaye suñ bi firil ku boppam ni xab li jëmihil xalq mayel mboole bindee fi mu tegaat ci baatu yër ma ni raxmata man ma de ka nga xam ni képp ku jàng alxuraan ci jëmam ji tax dana la jox jàmm ju la doy sëkk jox la mucc gu la doy jox la xéewal yu la doy sëkk ba doo soxla aw ay kon nii ko siñ bi santaane yéene ko bindee fi noonu yàlla na ko suñu borom defee noonu ñëpp ñu fekk mu yàgg noo digal ñu di ko jëfe ci barkeb sëriñ Touba barkeb max doomam ba nga xam ni mooy léppam sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu